salaamaaleykum Galsen salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum wóoru waa salaamaaleykum xam yéen a seetaan leeral TV leeral point net yéen a ngi nuyu en live on direct fii ci Pikine et ku ne Pikine nag xoolaa sa xel dina dem ci agriculture te ku ne agriculture sa xel dina dem ci Matador le grand Matador que nous saluons au dem ci Amadou Fall Ba dem ci Omar Ben Khattab sa dem ci Zenix sa dem ci ci Zaf tey nag balaa muy dugg. di xool ñu ma fi indi ñetti ndaanaan laa dajale ñetti ndaanaan yoo xam ne kenn ku nekk dafa foo jógee kii mu ngi jógee Ngor Almadi kii jógee ba Kébémer kii mi ngi fii ci biir Pikine mais balaa may jàll si ñoom ñooñu dama la nuyu sama tonton tonton Boutour Corona tonton nuyu naa la. tonton yaa ngi nii en live and direct ci Leral TV quoi lay wax gars yi lay seetaan waaw yow tonton dafa mel tonton xam naa après dañuy jaay ci Leral après dañuy ñëwaat xam naa tonton nekkeegul voilà su gënee baax gën a cool je disais. dama dajale ñetti ndaanaan te ñetti ndaanaan yooyu c'est des jeunes très talentueux kenn ku nekk nga am carrière nga am sa semaine booy suivre ma choisir leen dafa ñoom émission mais ñoom ñun ñëpp kenn ku nekk dafa am dafa am foo jógee am fooy représenté kii mi ngi représenté Ngor Almadi kii di représenté Pikine kii di représenté Kébémer Mor wan bàyyi woon kenn ku nekk ma gis leen wan bàyyi woon ko nekk ma xool leen. dama ñëw ci benn gain boo xam wax naa ko ki nga gis ne mu toog sama wet ki mooy Bro Dollar te ku ne Bro Dollar sa xel di dem ci Ngor Almadi Bro nuyu naa la. yow maa ngi lay fay Jeannot di di di kontaan si si invitation bi affaire mi ngi baax. waaw muy baax. xaaral ma jàll si ci sant yàlla alhamdulilah salaamaaleykum rek di nuyu ñëpp di nuyu waa Leeral xam ngi kontaan trop invitation bi nii quoi. yaa yaa sa waay quoi. waaw waaw dafa mel ni ah. waaw man comme ça moo droit xam naa yow yaa yor CFA ak Dalas. <laughs> waaw waaw CFA moom bàyyi ma booroo ko quoi bàyyi mu nekk suma côté bàyyi koog daala yi. ok ñu bàyyi koog daala yi bro. yow parce que tey yaa ngi nii en live woon daala ci Leral TV. Mm-hmm. seen émission Leral hip hop. tey ñu am plaisir am contentement fekk la fii ci Pikine. te je pense que l' émission on devait le faire chez toi. mais le temps nous est compté il fallait que ñu def émission ak yow. le choix que j'ai porté sur lui c'est simple dafa nekk gaañ boo xam ne non seulement a du talent mais dafa gëm dafa gëm boppam gëm boppam gëm lu muy def récemment tu signé tu as signé à Reptile bro looy wax ñi nga xam tey xamuñu la te peut être looy ñi nga xam tey xamuñu kan mooy bro à travers l'émission ñu war a découvrir bro en un mot loolu mën a wax quoi ci ci ci daal la. yo bro daala bro daala artiste rappeur la bu juddoo Pikine màggee diggante ngoro Almadi ak ak ñaaxu rap quoi xam nga bro daala benn benn booy la bu bu teel a gëm hip hop teel a gëm ne da si génn quoi comprendre nga di invité tamit sama sama morom yi sama mag yi sama yaay sama maam yi ñëpp ñu ñëw support te xam ne dañuy jëlee li fi nekk fii indi fi leneen lu bees quoi tu vois genre si ñëw ma nag reptile la si ñëw ma reptile mais falaa nekk di joobee quoi lépp instant yi loo dégg bro daal joob na ko reptile la ko joobee quoi te loolu noonu du saraxuñu suñu talent moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu fa yóbbu quoi moom saraxooñu nee na talent moo ko fa yóbbu je pense que tey talent ci talent boobu la ñuy la ñuy ñëwaat tey tout le monde sait que talent pour ñi nga xam ne xam nañ Bro loolu méttiwul mais te bu ñu ñëwee carrément sur sur Bro en tant que tel par rapport ak moom ñu dégg Bro mu mu mu mu am haut fit maanaam génn taxaw wax yenn kàddu yi xam nga jaar foo xam ne peut-être am naa boo xam ne bëri xam te du mën ñeme ñu ko def mais maanaam nga wax loo xam ne peut ñu bëri ñu ngi wax te yow tey tey tey tey tey noo koy noo koy koy dundee. Euh, xam nga moo tax moo tax ñun ñuy ñuy sant yàlla bu ñu bu ñu bu ñu yàlla defee ñu yeewoo Sénégal quoi njëkk làkk wolof quoi xam nga dañ ñu dañ ñu dañ ñu yar si dëgg quoi ak nu ñu munti mel lii nii yëpp bonus la daf ñu daf ñu fekk si quoi lii du loo xam ne dañ ko forcer quoi mais lépp leneen loo gis mooy tey suñu xamante man ak yow dëgg la quoi comprendre nga parce que da nga wax dëgg genre bro daal am na talent ku ko wax fenoo danga wax dëgg quoi maa ngi maa ngi lay remercier tamit si si si si dëgg bi nga wax noonu mu delluwaat tamit si si si si man dëgg bi ma bi ma wax quoi comprendre nga parce que parce que dëgg la quoi ma dama am talent dama dama gëm li ma lii te loo ma laaj ma tontu la parce que xam nañ li xew si si rab bi quoi te te dañ pare pour pour pour won gaay yi ne lii moo fi xew te dañ fiy jëlee loolu indi fi leneen lu bees quoi ci kaw loolu noonu pour mu leer pour ñu leer gars yi seetaan ndax leeral hip hop la wax bu ñu fi ñëwee lépp daa war a leer on t'a regardé à travers les interviews nga am audace taxaw wax ni game dafa bëri ay farmason game bi dafa bëri ay fake dafa bëri dafa bëri ay gars xam ne li ñuy wàcc nekkul si ñoom. y a de vendeurs de rêve. tey est-ce que ba xam na koy assumer ba léegi nii. si. tu assumes <laughs> duñ dellu ginnaaw. doo dellu ginnaaw nga wax mais bon. c'est pas pour créer des problèmes ni pour mm, am lu ñuy wax mais juste que dañuy waxtaan ci loo xam ne peut-être voilà jot na fi am mm-hmm. pour ñi xam tey jotuñu jotuñu suivre woon tey Bureau Dollar mm-hmm. Bureau Dollar avant tey à travers te ñu jot a xam ne voilà kan mooy Bureau Dollar bu ñu waatee ba léegi par rapport ak ci ci noonu ba léegi mm-hmm. am rapport boo xam ne bon jot nga ko jot mën naa jot nga ko jot muy ngaaka ba léegi day xam nga voilà jot nga ko jot <laughs> donc tey voilà foo teg loolu noonu nga xam noonu nga ne ak baykat bu ko gars yi bëggee dañ dafa dañu am benn benn benn yërmande dañoo mbuuboo jeel bi ñu jaaroon tey loolu wax ci loolu tey loolu loolu yow nga ko leeral wala leer non non man mën ma ko leeral yaa ma tamit ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi leeral quoi comme lépp a leer te képp te te fii nii nii damay damay contact tamit parce que yàgg naa leen suivre quoi gis naa ne yéen ngi def vraiment job bu job yéen a ngi jàppale ay ko quoi merci beaucoup te gis naa ne tamit nekkoo leen di invité ay cuune parce que encore une fois damay fàttali gars yi ne ñun dañ fi ñëw suñu talent moo ñu fi indi. c'est am na di di la remercier tamit si loolu noonu bu weesoo loolu. man ah, damay damay wax quoi si cadre hip hop laay waxee ngaaka si cadre hip hop laay waxee ak bees comprendre nga dama ne ngaaka genre bu muy bu mu doon man doon naa ko déglu quoi mais bu mu jógee jël ñëw après yërmande bi soo seetlee moo ko jëlee fi mu newoon yóbbu ko feneen xam ba tey jii loolu moo ko topp xam après gis ngeen gis ngeen après saali saali nekkul woon di fees parce que defu fi rab bi ñu soxla quoi ak bees ba léegi nii man déggu ko mu def lu cool quoi xam nga gars dañ ko voilà quoi loolu laa gis ah. bon lu cool wala deful lu cool loolu ça reste à savoir donc ce sont les paroles xamul tax <coughs> maa ngi jégalu. ñëwal tax ma wax la loolu noonu. Mhm. parce que man néew ma mënuñu rab ba tey de mais man fi ma toll quoi fi ma toll xam chaque jour fa gisee. dama gis ne man fi ma toll ñoom ñu toll foofu noonu moo tax. borom na wuyu ma attends borom bu ñu yeb nag. fi ma toll yow leeral ma la war siiw li nga ma toll yow fa borom bu ñu fontoo de. c'est gis nga ak bay xam nañ ko ngaak Sénégal xam nañ ko. Mhm. borom tamit boo waroon mhm. la xam. Mhm. tamit boo taxawee ni ak li mu def wala ngaak li mu def yow fi nga toll toll ñu fa tamit borom tamit. tamit quoi tuuti. benn jour benn jour dama man dama yàgg gëm ne dama yàgg gëm ne damay percer quoi nit jàppale ma nit ñaar ñàkk ma jàppale quoi moo tax man ma neex a jàppale quoi moo tax tey alhamdulilah instant bii nii ñu ngi waaj def ak ay son ñoo xam duñu ay sénégalais te newuñu Sénégal te ñun dinañ déplacé wu dem ñoom dinañ déplacé wu ñëw quoi comprendre nga loolu noonu alhamdulilah mu ngi avancé suñuy rêve muy comment di réaliser wu ndànk-ndànk quoi xam li ma lay wax. mais soo gisee man ma wax la ma wax la ne gars yi ñu c'est parce que man maa leen gën a tàng bro comprendre nga man tey Sénégal yëpp. am na fooy dem foo xam soo fa nee Bro Dollar duñ ko xam mais gëm naa ne ñooñu dinañ ko xam bientôt parce que man sama saay sama sama première son laa fa tojee. comme di ngay dégg Bro Dollar Ngor Almadi nii depuis si première sound bi la woon bro dama def première sound ñëw teg concert invité ay artistes yi fi gën a taxaw ñu ñëw reposen gérer ba tey jii nii affaire di gën a yaatu di gën a law quoi xam kon ñun suñu suñu suñu atteindre seen adduna bi yëpp mm-hmm. loolu pour man suñ suñ ñun lay des quoi tey lan lañ lan lañ mën a xaar loo xam ne Bro ngi koy mi ngi koy waajal. concert instant yi te avant avant avant concert yi bëgg nañ clip génn quoi parce que am na benn sound bu bu bu ñu bu ñu mujjee def reptile dina génn incha allah euh, bëgg nañ mu génn ak clip quoi xam nga incha allah mais mais bu génnee ñàkk génn 2 janvier dañuy def concert. comme ne yaa gën a ay gars yaa gën a taxaw gars yi sala suba dañu may benn benn benn benn benn some freestyle pour wan gars yi ni carrément yaa gën a taxaw yaa gën a xaay yaa gën a am level gars yi. ba ñu benn freestyle su gën a baax gën a cool temps ma dem xooli beneen gain waaw xeeb naa saal yu ndaw yi mu ni maa laay seentu fan yi Ciss bu bégal sa fan si jaral na ma joxe sa fan yi ay kele geeg ñu ngi seen kaw da nga dof yow yaa ma njëkk a rab fuuf mais duma comme yow ñëpp ñoo ma topp lan nga si mën ña ko rab ngor ñun feek fi dëkk job bénéfice xaalis lu ñu gën a gis damay zikarifice bokk lu ñu gis dama doon pédophile moytu sa noonu booy toog xiboon di nga jekki rek père mu wax ko sa papa pour am fa respect doo mu sa fekkee si yow lay mette sa gëmën na pepe yor fitu gaynde fokka da medda luñ bokk nga perda ngor la ma dëkku fi dugg ñu ubba siggi da puuta noo zéro picc bokkatuñu laaf jaru forcé toppatool sa bopp maa ngi noos de rey benn ficelle pour cotiser ñoddil Chris ma doon pique yow da nga piso ba pare di mito. yéeza <laughs> en tout cas les deux temps ça reste à savoir. dina xam nga jàpp taxaw xool ci affaire yi en leeral mi ngi ne sa kër la su gënee baax gën a kuul la voilà ñun ñu tàggatoo beneen yoon. dénk naa la lépp maa ngi maa ngi maa ngi bëggee gaay vraiment di. di di di waa Ngor parce awma seen fay quoi encore une fois di remercier ñëpp Issa ay Paco comprendre nga. di remercier ki ma àndal nii Babs. mu ngi ju newul Sénégal mais mu ngi fii. gis nga dañ déplacé wu pour. xamal li ma ñu ngi siy. jàpp ko kontaan kontaan frère ñu bëggee ñëpp bàyyi. waaw rek bëggee ko la gis hip hop nag. <laughs> gën a cool jaajëfal frère waaw maa ngi ci dollar yi waaw <laughs> voilà ñoo ko déggandoo ah gis ngeen bureau daal nekk benn bureau boo xam ne macha allah voilà moom ay dollar la yor kay CFA am yu bëree bëri su gënee baax gën a kóol yoroo dañuy ànd maanaam xoole ji beneen ngaayin xoole ji beneen ndaanaan xoole ji beneen supérieur baay faal Big Bass naka la. nice kay. yaa a baax. am jàmm lépp cool yaa ngi nuyu eh, ngi nuyu Sénégal nuyu ñëpp euh, rawati waa nuyu euh, DJ Jano bi nga xam ni si nii moo waral tey émission bii nii ma teew fi Leral TV waaw di ko shawda bu baax a baax a baax. Yesa ñoo ko déggandoo le gars nous suivons depuis Kébémer dafa jógee ba Kébémer uniquement pour pour def émission bi ak ñun mu nekk gaan boo xamante ni tey. ku dégg turam rek xam ne voilà waa Kébémer ndax région yi dañu dañoo gëm seen artiste ñu lu nuyu de passage waa Kébémer waa Touba xam nga waa Diourbel ñëpp bro ma naan ko autant dama jóge ci bureau daal léegi su ma ñëwee carrément ci ci ci ci yow muy Big Bass Big tey loo mën a wax gaa yi nga xam te xamuñu la war war war la xam à travers l' émission quoi loolu la wax benn présentation bu ndaw ñu xam carrément kan mooy Big dama leen di maanaam damay ñëw présenter sama bopp Big Bass sa benn booy boo xam ne si nii Kébémer a dëkk gëm dëkkam trop trop sax. waaw di di leen wax ni carrément Big baas doon na nekk ci ay projet yoo xam ne si peut-être dañ naan yàkkamti yàqule yàkkamti yàqule moo tax tamit instant bii nii ñu ngi doon def ndànk-ndànk jarul jarul leen loo xam ne si nii maanaam dañ koy yàkkamti pour nangam sangam dañ doon def ndànk tey ba lii ñëw di ngeen xam nag léegi nii nii nii kan mooy Big baas waaw jaaraf dinañ xam léegi nii kan mooy bi Bass loolu je pense que ce sont tes propos je pense comme je disais rek rappeur bu nekk tey am na droit ku wax ni maa fi mën rappeur bu am na droit wax ni maa fi daa xarab mais tey en tant que yow Big Bass tey ndax tey à travers Kébémer bi nga xam tey fa nga nekk di ko di ko représenter di ko recognize ndax Kébémer nangul nañ carrément que rappeur bu mel ni Big Bass am na fi. non Kébémer Kébémer nangu nañ lépp Kébémer tous les rappeurs rappeurs yi fa nekk yëpp. ñoom nangu nañ ni carrément Big baas moom moo leen di représenté parce que Big baas moo xam rab moo mën rab a <laughs> kon lan ndax dana Big Bass rab moo mën rab en fait Big Bass tey bu ñëwee ci yow tey waxtaan ci yow en tant que tel tey bu mu ñëwee par rapport ak si si sa vie personnelle tey boole ñëw si sa vie familiale autant pour moi tey ñëpp xam nañ danga am frère boo xam ne il fait du rap tey yaa ko mag. tey yow ban ban ban ban effet la lay def tey boo gisee sa sa frère boobu nga xam tey muy matadi ndax tey ku ne matadi wax ngaa ko Blindé ku wax ku wax ngaa ko Blindé aussi wax matadi yow ban ban ban effet la lay def en tant que koo xam tey mën naa ne yow grand frère am mu nekk ci rap hip hop Galsen bi ko représenté Sénégal lépp xam ko yow mi nga xam yaay grand frère am nekk Kébémer gars xawuñu la foo nekkoon ci yan affaire nga nekkoon. waaw loolu loolu nga wax dëgg la matadi maa ko mag mais sama frère la boo xam ne sii nii jox na ma cër de trop. li tax nag peut-être gars yi xam ko te man xamuñu woon man j'étais à Kébémer en plus man dama doon jàng dama doon jàng après bi ma amee bac laa dem université affaire yooyu noonu mais loolu noonu peut-être mën naa ni sax lu ci ëpp rab moo moo moo moo moo yàq sama jàng peut-être mën naa wax lu ëpp ne rap moo yàq sama jàng matani nag pour pour loolu noonu amul benn problème moom du toujours daf ma daan wax sax del def ndànk koi del def ndànk jarul nga yaakamti loolu noonu daan na ma ko faral di wax lu bëree bëree bëri xëy na nag loolu nag instant bi jot na jot na instant bi jot na te tamit mooy loolu quoi Matadi moom amul benn problème ci loolu sama frère boo xam ne si jox na ma cër moo ngaa ko blende jox nañ ma cër mooy loolu quoi Kébémer nag moom ñëpp xam nañ ni Big Bass moo mën sax booy Dakar loolu moom bon d' accord Kébémer ak bon yaa mën booy Dakar en tout cas booy de voilà booy réseau de macha allah mën rab mais boo Dakar aussi dañoo tàng bu ñëwaatee ci ci ci yow parce que tey loolu lañ mën a wax tey maradi seen yi mi def bëri na nga ak seen de bëri nañ ak loo jàng jàng ma war mën a tey benn benn benn concert ñu gis benn big bass war loolu war na waroon na mën a am ndax yaa ngi sollicité gars yi par rapport ak ah, seen événement yi ñu koy def non benn yoon laa leen mës a def loolu te loolu am naa ko loolu noonu am naa ko man dama ni woon si jàng laa concentré wu ci lu ëpp sax mais benn jour am na benn concert boo xam ne c'était à Louga am na boo xam ne c'était à Kébémer bi ma ne leen damaa bëgg a dóor carrément dañ ñu ma ñëwal ma ñëw toj foofu ñu toj fa ma toj fa wan ni leen tamit mooy loolu tamit rab. am na yaa yaa yaa fi moom. man wan ni leen fii maa waaw wan ni <laughs> leen fii nii man maa fi moom carrément jour boobu Kébémer ñëpp xam nañ ni carrément nag Big Bass comme que nekk na kaw seen mook Ngaaka Blindé ak Matadi di def gars di yuuxu xam nañ ni carrément lii nii kii moo fi nekk quoi loolu moom gars yi nangul nañ ma ko même Ngaaka Blindé nangul na may carrément je suis <laughs> dafa baax doomu aadama ngay gëm sa bopp dafa baax nit ku nekk voilà nga nga ngay gëm sa bopp dafa bokk ci dafa bokk ci jaamu yàlla sax gëm sa bopp te loolu voilà man je le salue surtout si si si yi tey lan nga xam te voilà Big Bass moom mi ngi mi ngi koy préparé actuellement nii nii nii instant bi peut-être mën naa ni mosuma dugg sax studio mais dama doon bind di denc rappeur boo gis nag da nga war a am li ñu naan répertoire man su ma génnee xam naa ne li ma denc su ma ko génnee Sénégal day toj je suis plus fort que Dip je les rappeurs loolu moom maa ko wax. moom <laughs> loolu lu ma ci débat tu es plus fort que am nga si droit ku nekk ni maa fi mën loolu kenn mënu si dara loolu moom ki dañ la koy nangul yéen bàyyi faal ma dañ koy nangul te est ce que mënuñu may benn benn benn somme freestyle rek voilà pour tàggatoo ko ak gars yi. ok mën naa la may benn some somme freestyle. ok gis naa fi carrière yuy sa xaar te nangoo góola booy def erreur ci seeni semence sa waral toolu rab bi booy fu ñuy mujjee bàkkoo talent ci rabu éphémère big bass rab mu def effet fu mu dëkk Kébémer damay def lu leen di jommal ñam wi gynécologue sama rab dalay faj pourtant du ma gynécologue aw ma woon autorisation parentale pour def musique mère daf ma jàppe woon benn parental faa ma def ñu gis lii de léegi laa ko teg ci riim yu leer ni ba bëccëg dooma amaan ci li ma tardé technique bi fay na lépp lu jot yomb kon jarul yaakamti bay fakkastallu flamme de ñoo fi am ay taalu soxla ma play si équipe type bu bëri ay jouru dimanche bakoo talent di saale fu ñu ma gis seen fit yi dimanche nekk ñu fii faa sax pourtant ñoo professionnel élève bu am problème peut-être professionnel seeni vision la sa mbët jéggi ci plan bu rétiné seen raba amee presse bi si ngeen bëgg a accommoder buñ nangoo tout la déglu rab valeur yi ngeen piétiner fëkkati ngeen caaya rab bi bëgg ko raccommoder lii fës seeni bët ba leen di myoploo laay xool man di ko gis sans verre correcteur rab bi nga jàppee top modèle ci sa solu correctal mënoo conduire gem bi ci faste yore woo nga laab yow mi jaamu raab def ko diine yàlloo na nga raab lab dina la defloo sacrifice rien que pour si wut loola sécurité bu yaakaarul ayatul kursi yu yesa yesa <laughs> mais Diop gars nangu nañ de non man damay valider quoi hmm. las boobu daal dernier boobu daal looy tàggatoo gars waaw li may tàggatoo mooy di nuyu sama maire bi nga xam ne si nii moo ma jox autorisation ma ñëw di nuyu Matadi donte sama frère la bi may dem nee na ma soo demee na nga def ndànk te xam li ngay wax di nuyu Ngaaka Blindé carrément nee na ma émission bi incha allah lépp dinañ ko teelu di nuyu sama waa di nuyu waa Kébémer di nuyu sama xarit yëpp di nuyu sama rakk yéen Amet di nuyu suñu waa kër ñëpp di wax waa Kébémer nag carrément Big Bass mu ngi ci ay projet xëy na peut-être amoon na loo xam ne seeni moo ko gàllankoor ba tax kii mais Jano tijji na lépp waaw mën naa ni Jano def na lépp quoi. yes ça c' était Big Bass c' était Jano dans votre émission Nene gënee baax a cool xam naa dañuy ñëwaat biir Kébémer fekk la nga wàcc fa benn affaire bu dóor bu gën a. baax incha allah ndax ndax décembre bi sax maa ngi fay waaj a dóor benn concert bu mag a mag a mag. yàlla baax na Yoro su baax gën a cool dañuy def ndànk xool yi ñu xooli beneen artiste. xooli beneen sama sama beneen troisième invité waxoon naa ko sànq ñetti invité laa am kii mi ngi jugee Kébémer kii jugee Yoff Almadi dañuy ñëwaat yow Ngor Almadi autant pour moi kii nekk fii biir Pikine te ku ne Pikine wax fi ay talent wax gars yu mën rap dañuy dem xooli kooku mooy kan yes gisandoo de boroo bu tàng nga nii ki mooy ma meen Abdel ji. ay ah. ma meen Jano bi. Abdel ji yaa ci leeral hip hop. ci leeral dans votre télé leeral leeral TV. Mm. looy wax gars yi lay seetaan. bon salaamaaleykum maa ngi nuyu waa senegal di nuyu Digay Siri di nuyu sama fiaf Pikine ñëpp everybody bàyyiwuma kenn di nuyu gars yëpp. di nuyu téléspectateurs yi ñi nga xam ni képp ku toog di seetaan leeral TV Abdel ji mu ngi lay bégee di la shout out. yeah di la bëggee aussi ci invitation bi. non ñoo far one love. Abdel G de son vrai nom nekk gaan boo xamante ni il n'est plus à nekk une bête de scène nekk bro boo xam mën ngeen ko gis mu toog nii nii nii quoi mais boo ko fekkee sur scène ci concert oh da ngay da ngay da ngay tapé zem tellement la le gars il assure Abdel. tey looy wax ñi nga xam tey ñi ngi ñi ngi ñi ngi seetaan émission bi tey jotuñu xamuñu woon kon mooy Abdel à travers l' émission Leral Hip Hop. à travers Leral TV Leral point net ñu war a découvrir carrément le bureau Abdel Dji. Hmm. kan mooy Abdel Dji en tant que tel. bon Abdel Dji c'est un jeune rappeur bu juddoo ci banlieue bi plus précisément pikin yaroo fi màggee fi bon Africulture jël ma yar ma teg ma ci yoon ba 2019 ma génnee sama premier projet bi ñuy wax waxtu voilà en plus bokk ci benn projet tamit benn téléfilm série bu war a génn bientôt incha allah ñu koy wax wala bokk. yàlla def bon ma nekk ci acteur donc voilà quoi noonu la demee. <laughs> yàlla def mu war a ci nekk acteur bon wala boog xam naa léegi léegi léegi mu disponible la je pense que ci si bokk bari nañ mais carrément tey man su may su ma amee lu mooy jooytu man ma koy jooyee man Jeannot man je t'ai vu sur scène une fois même en plus en fait mënu ma ko compter quoi je t'ai vu plusieurs fois mais vu le talent que Abdeldji a sur scène mm. lan moo lan lan moo tere Abdeldji personne ndax dafa am lu muy xaar wala dafa am ñu ko téye wala dafa am dafa am déglu mm. ndax le talent est là kenn du ko waxtaanee. waaw direct waaw mën naa ni voilà daa ñu mu ñu muy déglu parce que yàlla dafa def moom ma sama bopp quoi dama nekk ci benn euh, structure bu ñuy wax africulture ban nekk fi ak samay grande euh, matador bon du sama grand sax sama père la que moom a yar depuis treize ans quatorze ans ba léegi. ci moom laa nekk. donc mën naa ni ñoom ñoo ma xaw a voilà quoi téye tuuti xam ma pour affaire yi gën a ñor. tamit maa ngi ci bagage yi tooguma rek maa ngi maa ngi def ay jéego nànk-nànk xam naa ni voilà bu ñoree rek incha allahu rabbi voilà ñëpp dinañ xam Abdel Dji waaw ñëpp dinañ xam Abdel Dji ndax à la base aussi ku xam agriculture xam ko ci formation ku xam agriculture xam ko voilà ci ci ci jàppale les jeunes rappeurs. ndax on s'appelle aussi de ce fameux concours flow xam ñu ko teg uniquement pour jàppale le jeunes. Mm. ça c'est vrai Matador moom voilà kooku voilà moom. pionnier la quoi kenn kenn du kenn kenn du wax ci ndax voilà kooku suñu papal ñun ñëpp dañ koy dañ koy baax mu gudd fandu bu bëree bëree bëri muy moom muy voilà muy Omar Ben muy muy muy le grand ba ay ñoom Zenix ñëpp tey bu ñu waatee carrément sur la carrière de Abdel Dji hmm. carrément ni ni ni nii lala Abdel Dji di di waajal lala Abdel Dji di def waaw comme ni ma ko waxee rek comme que génnee naa sama projet bi ñu wax waxtu en 2019 donc instant yi ma bon loolu maxi la woon maxi donc instant bi mën naa ni maa ngi ci préparation album quoi maa ngi togg affaire yi nànk-nànk ak mooy projet bi ma la wax euh, film bi. Hmm. mën naa ni loolu moo ñu xaw a stand by tuuti sax parce que ak tournage yeeg yooyu noonu. donc du mën a ànd ak yenn affaires yi quoi hmm. mënoo def deux choses à la fois. donc ci affaire boobu laa nekkoon ñu nekkoon ci tournage et tout mais macha allah instant bi nice donc gars yi la ñuy déglu bu ñu paree rek ñu bomb cere ji. waaw affaire yaa ngi fi aussi son yi et am na ay vidéo tamit yu war a ñëw ci décembre bi incha allah donc Abdel a ngi waaj ay projet yu diis yu diis a diis incha allahu rabbi ci kaw projet yooyu nga xam dafa diis diis a diis a diis a diis dafa am benn vidéo boo xam ne sama génne nga ko muy sama live yoro su a baax gën a cool dañuy dem xooli vidéo boobu noonu Abdel Dieye sama live yes big up sama family great family my man Njaw Youssou Cerno Kiné Abdoulaye Gueye Abdel G. The Godfather. Right? 94 la gane si fi doon Abdallah kot mi ma sàkk def ma ma doon sama taw ba ni ma magale si famille bi nekk lu doy waar si côté ba côté mère gisuma mbokk buy toog ba def jaar ma ak ñoom ag rakk yi mbooloo fanaan ci benn néeg stress teel ma dikkal ma tàmbale ràññee sama xol di ñëw fay location te ñu ba weeru jot ñu jël suñuy bagoo génnee jafandu dëkk ci tabax bu yeggu le temps ñu gis beneen gàllee sa ndékki këpp cin fasaale añ bi xale yi jooy nga fàtte sa bopp tollaguñu si muñ xiif yaay ju takk ndigam sol dalam jaayante gu dugg ci koñ bi lijjanti soom bi am lu ñu def ci biir yi ngir ñu mën a giif amuñu chance su dugg école ci mbedd mi la ñuy taxawaalu sol sa nga def tàngu neen ci kër jàmbur yi la ñuy tàmbambaalu xeetu feebar bu ne di feeñ ci kër gi amuñu lu ñu fa joo nattu bi toll ni mbugal topp mag sama famille kañ la ñuy tàggoo du fiction trucage li ma lay tegal bro loolu laa dund bala ma xam li may xam xamadi xaw naa yàq sama dund du fiction trucage li ma lay tegal bro loolu laa dund bala ma xam li may xam xamadi xaw naa yàq sama dund ne si gàlle bi yaakaaru maire bi teg ci war a dimbali paa bi te xale yi teg leen ci yoon jaayante waroon a gérer kaa bi toppatux bon naan sàngara yàq sama jàng nekk si lu ma neex képp ku ma bëggoon a jubanti ma jàppal la haine bu dul jeex fës ci samay ennemi juré ma jàppee ko matador tëbal ma studio ngir ma jàng boole ma ñu may koj di ma dóor oh man mësuma bëgg jàng lu dul teg di la wër di dóor jàppee ko life góor nekk sama magu bopp aw ma lu may life bi pa bi di life situation yi ñàng yi muy dund di ma marqué ba bis bi may dive taxaw tribunal ñu war ko juge ma si teg sama ay verdict bu daanu mu tëdd génn ma koy xoolee bët yu nice li may seet moom di sama bopp tax ma soppi lu bëri tellu ma jóge jël ma moom fas yéene fight am lu bëri bébét yi may bébét gëm naa ne bis got dina ko mottali bàyyi first rap dina ma fay ma tabax gàlle dugal ci famille bi

léegi xam naa xàmmee naa dinaa def sama kéemtalaay kàttan kéemtalaay dajale njaboot yi ngir ñu bañ taxawaalu wala di xaaraani takk jabar indi ko ci gàlle bi mu mën a aw meer bi aw meer yóbbu paa bi màkk mu mën a soppeeku ñaan yàlla mu bàyyi leen fi bis ñu fekkee du fiction trucage li ma lay tegal bro loolu laa dund bala ma xam li may xam xamadi xaw naa yàq sama dund du fiction lay tegal bro loolu laa ma xam xaw naa yàq yaay jigéen ju mën góor père Boubacar Buzz One Love Godfather de retour sur le plateau au plaisir des yi nga xam te ñu ngi kiife Abdel ji ñu ngi kiife aussi émission bi en particulier ma bëggee ma meen Kaaw may naa ko vidéo boobu noonu Kaaw di nekk bro bu baax bro bu cool Abdel. Mhm. clip vidéo bi ku ku ko seetaan xam ne Abdel ji a du talent. tey voilà noonu loo loo looy mën a wax ndax carrément li nga doon xaar bi am nga ko. ba waaw mën naa ne am naa ko parce que clip bi ça reflète un peu ce que j'ai vécu ci rab bi donc mën naa ne li ma waxul sax moo ëpp li ma ci wax quoi. voilà te clip bi dafa bokkoon ci sama son bi sama live dafa bokkoon ci projet bi waxtu donc voilà quoi mën naa ni ba ma koy bind njëkkoon naa def son boo xam sama live la voilà mais après dama toog xalaataat ni voilà quoi man dunduma lii alors que li ma li ma li ma dund dëgg loolu laa war a wax alors après laa toogaat toogaat affaire yi toogaat affaire yi mu gën a ñor voilà ma génnee sama live mu nekk lu ma dund voilà parce que ñëpp xam nañ ni hip bi voilà tout début est difficile. voilà dara yombul donc ba ñuy commencé métti woon na ak mifa bi ak condition de euh, de de vie bi et tout. mais sant yàlla quoi comme que tey dem nañ ba yegg si fii rek alhamdulilah quoi. ndax Abdel Dia am koo xam ne moom mooy référence Abdel Dia. waaw man moom sama référence yaakaar naa ni du ma ko wax parce que ñëpp xam nañ ko mooy Matador. voilà Matador mooy sama papa mooy sama référence mooy sama lép quoi macha allah. waaw di waaw waaw waaw di la shout out yow di la remercier encore une fois ci émission bi di béggee toute l' équipe de Leral TV voilà di di di béggee képp ku toog di seetaan émission bi di béggee sama mi fa pa bi mère bi samay frère samay sista di béggee waa Batlow Siri waa Géejawaay daaru bon Pikine bàyyi ma kenn quoi everybody everybody ci kaw ñu nga bëggee noonu ñu nga bëggee noonu ñoom ñëpp mm. da ngay ànd wal leen carrément yow da nga mën a man xam naa ne da a léegi gars yi sataat ñu naan ndax gars yi man naan dama leen wax benn seen nga <laughs> léegi one by one kenn ku si nekk da nga ñemee benn freestyle la ñu daal di xool ok waaw loolu loolu loolu loolu force la ok ni nga ñetta ma dafa nekk ci temps bi nekk ci game bi ñor di taxamuñu fu ñu jëm tey ñu ngi rap suba ñu ngi rege ñu ngi mbalax ñu ngi zuug kenn xamatul lu nu gëm téere rap bi la charte rap bi la bégge rap bi la dàq rap fi la phénomène bi la benn melo bi la ni nga da di rap yow fekk rab fi la beach jox ma bi mic boo ñemee dee ni nga yox la nu fight parel xam ni tey ma rikëb sa life ñu bokk yam ndaxte man dama dive pa gëmal ni type for life li may def dafa nice sama sama price wala kulal sa size tijji sa ice man maay da booy di cry sa boo déggee ni maa ngi fële di rap na la jaral takk daali setaani an li ma lay wax nga koy dégg wan la nga gis mënoo koo seet ci tani wala boobu ba léegi may rap te gis naa ni game bi kenn du fi bandi man maa fi bandi may uti di andi haters yi béggee di gondi waaw nangu leen takku ci buum bi ma diri fi game bi man rek maa fi last kiiri boyer o jini nga rappeur bu tiigi kaay ci maîtrise bi ci ar bi nga sigi Abdel ji du rap lu easy ma ñëw fekk level ci suuf defaraat yeesalaat aj ko ci kaw MC ji defe ni type day ruux doomu kenn pila du dëpp du daw Abdallah Gela Sadik bu dee la ci ceddoo ca ndee la ci blaagi man dee la killer er Gela rap la ki yëngali pop bi du waaji man dee la <laughs> ay doomu kenn pila du daw en tout cas ñu ngi lay bëggaat bu bëree bëri bëri di la shout out di la rendez-vous voilà très prochainement ci yenn projet yoo xam ne xam naa du ñàkk yaa ngi koy waajal incha allah incha allah voilà baax gën a cool je pense sa merci Kile Sob depuis yëmbal ci habillement bi comme d'habitude moom Kile moo koy depuis yëmbal nekk grand boo xam ne franchement pas lépp lu genre def da ciy jàpp da baax a baax Kile moo koy baax baax su gënee baax nga rekul aussi ñu jox rendez-vous gars yi beneen samedi ak yeneen daanaan wala beneen daanaan yesa Abdel kontaan peace jaajëf frère maa ngi sa ginnaaw mais non ñoo far sama waay one love one love Leral TV